série léegi nit ñi dañ koo jëlee lu négatif mais pour man dëkk bi nit ñi ñu ngi dund lu gën a pire loolu parce que ñoom jàngale mooy dañuy refléter société bi instant bi actuellement li ñuy dund te xaaj bi lu ci bari defuñu ko boo gisee en général euh, série bi ñuy wax infidèle ñu ci bari ñu ngi leen di taxé lu bon walla dara mais noonoo ñoom dañuy jouer exactement nit ñi li ñuy def maanaam dañuy refléter affaire bi nga xam ne nii nit ñi moom la ñuy dund actuellement. man am naa benn cas boo xamante ne xam nga ndax mën naa ko cité quoi xam exemple joxe man j'ai un ami boo ne am na film yoo xamante ne bokk na ci di yàq instant yi ménage am te pourtant jabar ji mag la c'est une femme adulte am xel di xalaat. mais xool film dem ba benn instant mu dugg ci moom dem ba mu koy appliqué dem ba tas seeyam yàq seeyam. am na si boo xam dañuy bind ay moins de 16 ans wala moins de 18 ans boobu am na ñu mu mën a jëriñ mais mën naa ne ñu mën a jëriñ néew na lool. boo seetee sax li muy loore moo ëpp fuuf ndax dafay doon série yoo xamante ni euh, li suñu aada nangu ci ci ci ay teggin ci ay maanaam ay jikko ju rafet maanaam série yooyu euh, booy seet duñ duñ ko respecté. ñi daan dawal ay série lu toll nii ay daaroy kocc ay jamonoy tey yu demee noonu ñoom Baye Pëlëg ñoom ay Ibou Laye ñoom Pa Moukhra jegeeg ñooñu. dañ daan yee doomu aadama yi di yee sénégalais di wax réalité maanaam dañ lay wax loo xamante ni sax ñëwagul pour bu ëllëgee bu ñëwee nga xam ne lii kat waxoon nañ ma ko mais léegi nag dañ fee bàyyi lépp bëgg a doon tubaab te àdduna du neex ba ñu doon tubaab. série yi am na ay avantages yu baax comme genre dañuy apprendre ci ci vie bi li xew ci àdduna parce que li nekk ci série yëpp loolu yëpp moo xew ci àdduna c'est les c'est sont des actions réelles il reprend juste dans les films. waaye suñu sunu sunu sunu réew moo di ko jëggaani tubaab bi def ko ci réew mi moo ñu gënal di wane suñu aada di wane suñu culture di bàyyi bàyyi oto yi di wane lu si xale jigéen defee loolu mooy àdduna te du àdduna. comme genre série yi ñu gis fii léegi yeete wuñ jàngale wuñ xam nga dañuy yàq jeunesse bi parce que sénégalais xamul xamul kii copie copie la xam lu mu da koy copie coller day yaakaar loolu moo baax. série Sénégal yi ñu ngi ñuy lu bari surtout série Virginie ak Infidèles waaw lu ñu joué rek am si dëkk bi. waaw surtout infidélité am sa jabar nekk ak rakkam si kër comme infidèle et voilà. tey suma doom du seetaan série bi nga xamante ni mag da koy seetaan benn âge tey xalaat bi mu ciy xalaat bokkul ak yow mag bi xalaat bi nga ciy xalaat quoi kon tamit loolu noonu yëpp mu ngi ci. gis-gis yi si si si série yi day wuute léegi nag wuute ba muy wuute moo lay waral tubaab da lay defar moins de 16 ans. incha bu ñu ci ne moyen de 6 ans loolu du ñu koy joué loolu parents yi la ñoom ñoo war a comme bu ñu gisee moyen de 6 ans seen doom bu ñu koy seetaan dañ ko war a interdit comme genre série yi loolu loolu loolu seen parents yi la du ñu koy joué kenn ndax ñoom bind nañ ci suuf moyen de 6 ans mhm. ils ont déjà fait leur rôle. parents yi am nañ ci part parce que y a des séries yoo xamante ne munoo toog sax di ko toog di ko seetaan ak sa doom si nga comprendre série bu commencé sax yow boo mënul dàq sa doom sax yow da ngay obligé jóg dem te loolu fekk na gënalu la. man damaa jàpp ne ñi yor wàllu télé yi ak wàllu rajo yi. lépp luñ ciy dugal nan xam ne ñoom seeni i doom ñoo koy seetaan ak seen i rak ak seeni i papa ak seen i yaay kon bala ñu cee dugal dara muy daw ci biir ni ñëpp di ci teg seen bët kilifa yi di wa seetaan dañ ko war a xool seet seetaat ko quoi. dafa am développement pare xel yi dafa changé. merci ça dépend ça dépend aussi que parent bi ak kii joué. kii joué dafa war a joué li parent bi mun a tere doomam. parent bi tam dafa war a tere loo xam ne doomam waru seetaan. ak sa doom ak noo ko waxee moom mun na comprendre boo ko yaree benn yoon jarul nga xëy wax ay moins de 16 ans wala moins de 16 ans bu ñu ko bindul sax xale bu disee ne xam ne lii baaxul soo ko yaree moom war na ko xam mu bàyyi ko. état bi moo la gën a xam li war a dox ci réew mi ñoom ñoo waroon a jël média yeeg lu mu mën a doon lu mu looy wane ci dëkk bi ñu xool ndax lii war naa jàll ndax mais RTS bi mu fi nekkee loolu la fi nekkee woon. balaa ñoo génnee dara dinañ ko saytu boo xool ndax lii arrangé na Sénégalais yi wala arrangé wu ñu door ko góone mais bu fekkente ni le kenn ku nekk da ngaa ubbi sa rajo sa télé di wane lu la neex te amul kenn koo xamante ni ñeme na laa ne yow kat lii waruloo ko def mais lu neex waay def te am réew warta doxe noonu